Lo soxna may mën a jërëjëf Adja Lewis am na solo man li ma ci wax rek laataa ñuy ñëw ci élément bi ñuy dugal suñu thème mooy jaajëfal sëriñ Babacar Sy Mansour xalif général des Tidianes li ko waral nag mën nañ ne lu bari la benn ci yooyu mooy Sénégal jamono yu yàgg ba léegi da ngay dégg kilifa yi nañu wax di jooytu maam Abdou da daan wax man yàgg naa wax ne leen ñun ñi nga xam ne danañuy faral di dem ci jataay yu bari kilifa yi ñi ngi wax waaye benn xëy na fa ñuy waxee la ñëpp dul jot wala ña ko war a jottali ñoo ko dul jottali waaye keroog dafa waxee fu ñëpp di jot mooy waxee cérémonie officielle gàmmu Tiwaawan ministre intérieur toog message boobu noonu li fim ko joxee ba ñuy wax ne wax dafa jooy ñu ne ko lu la tax a jooy mu ne dañ maa waxee fuñ ma warta waxee ak yem ci boole yëpp mm-hmm. keroog wax na fi mu war a waxee nopp yi ko war a dégg-dégg ko dalay wóor ne keroog président la république mi ngi jàpp teleem ak lu mu mënti jàpp mm-hmm. bàyyi na ko keroog mi ngi jàpp teleem di seetaan dalay wóor ne même bu seetaanul télé ba mm-hmm. du tëdd ci lal lu dul ne jox nañ ko kat li nga xam ne moom moom la xalifa ba wax bu dul président dégg koy tamit ka nga xam ne moo maye lu mat fukki association góor jigéen Sénégal mi ngi toogoon. Mhm. ministre intérieur bu Sénégal. dix association ngóor jigéen. Mhm. légalisé nañ ko fii ci Sénégal. Mhm. dama koy wax nag ci euh, ñun en tant que collectif ànd sàmm jikko yi. mu làmboon non à la franc-maçonnerie et à l'homosexualité nga xam na ñu ngi ciy gëstu xam nañ ci dara. wax ji tamit dikkee ci coow lu weesu ci ginnaaw muy coow Waly Seck ak Tisetam. jamono yooyu ñëpp dégg nañ coowal góor jigéen yi ñëpp xam nañ ne Waly ti tiset ba mu soloon góor jigéen yee ko ko solal loolu moom amul demal dikk ndax bis bu Sénégal dóoree ñuy feetu victoire ba solo tisetu Sénégal nga dem soli tisetu góor jigéen lu mu tombeel mooy bis boobu noonu le wala ca ëllëg sa wala semaine boobu yëpp góor jigéenu àdduna bi yëpp moo doon seen semaine bu ñuy feetoo seenum ngóor jigéen tiset boobu mu sol boo demee ca Londres boo demee ca Belgique boo demee partout ay drapeau laa ki moom la góor jigéen ñi sol wala doon manifester mu ko fii Sénégal ñu coow ko ci année bi yëpp kon discours bi résumé na coow loolu noonu le wane ne ëllëg ku mel ni Wally Seck beneen artiste mayatuñ ko góor jigéen ñi di ko defloo benn promotion beneen bi ci biir yu bari yi discours bi làmboo mën na koo tënkoo sax mooy yéen wàllu journaliste yi ngeen bàyyi xel bu baax a baax ngeen liiraat seen code de la presse bu bees bii ñu leen signal assemblée national ci biir code de la presse bi nee nañ leen sañatu leen a wax dara góor jigéen mu ngi ci biir code bi article 17 dem leen ngeen liiraat ko lépp lu jëm ci ngëm-ngëmu nit ci wàllu diine ak la ca aju wala mu jëm ci wàllu nit ki tànn ne dafa am sexe bu mu taamu ne moom la bëgg a dund nga xam ne góor taamu ne dama bëgg nekk góor jigéen wala jigéen ne lesbienne. kenn sañatu la toog ci palaato wala ci émission ne yaa ngi jéem a wax dara lu naqari ab góor jigéen wala ab lesbienne mi ngi ci code de la presse bi. loolu nag gannaaw xalifa bi taxaw na ci kanamu ministre intérieur wax ko danañ ko fàttaliwaat sénégalais yëpp ñu bàyyi ci xel wane ne gars yi nelawuñu góor jigéen yi tëdduñu franc-maçon yi tëdduñu ñu ngi liggéey te seen liggéey bu antoo ñu dem ba ne léegi kenn ñemeetu la wax ci presse moo xam rajo la wala télé wala journaux naqar lu mbirum góor jigéen. su boobaa bunt bi ubbeeku na pour góor jigéen ñi gën a tasaaroo ci Sénégal te la ma leen waxoon ci laay daanelee Sénégal gii biñ koy tabax benn góor jigéen indiwul benn birig biñ koy tabax kon duñ ko tabax ba tabax bi yegg ngunal ginaar ngeen ko fi am kon ñu jaajëfalaat bu baax a baax sëriñ Babacar Sy Mansour yàlla na yàlla yàggal ko te wéral ko ndax ñu bari yaakaaroon nañ ne dem nañ ba réew mi toll foo xam ne ku ñuy woowee xalif général du àddooti ci yenn yi nga xam ne concerné nañ bi may jeexalee ta mu ñor ma Oustaz Birama ñu war ci bàyyi xel. nañu séenu maanaam ñun bu ñu taxawul def bolok nekk ci ginnaaw Serigne Mbaye Sy Mansour nañu séenu balaa yàgg dana am ay attaque yu bàyyeekoo feneen jëm ci moom. te li may wax lu ma xam la. bi mu waxee ci mbirum gendarme bi teguñ ci ay fan la franc-maçon yëpp mobiliser seeni éléments contre moom. kon buum ñu bettaat fii ak gàmm gi weesu ay quelque temps ngeen dégg ay coow yoo xam ne nii ay nit yëkkati nañ ko mu jëm ci moom su boobaa nag li war mooy ñëpp nañu taxaw ci côté. ndax nit nag doo tële dara sa kilifa defal la ko ngay nangu ay nit ñu tekkiwu dara bàyyee ko ca àll ba ñëw na ñu ngi koy attaqué. gannaaw wax na loo xam ne nii njaboot gi yëpp ñoom ñoo bëggoon mu waxal leen ko jooyal leen ko. waxal na leen ko jooyal leen ko njaboot ji yëpp tamit nañu taxaw ci wetam te bu mën a njaboot ji du tiijaan wala murit wala mais ku bëgg lu baax nekk Sénégal ak pas-pas boo mënti am lii mu wax yow la ko waxal kon defal euh, sa solidarité nekk ci wetam ndax li may wax dama ko xam bu baax mbirum gendarme bi daf koy yëkkati ay fan coow li ëpp leen ca kaw ba ji suuf pour ñu fay coow li ñëpp xam nañ coow lan lañ fi yëkkati pour kenn dootul waxati ci mbirum gendarme bi mm. bii tamit am na lu ñuy togg loo xam ne danañ xëy yàq ko pour ñëpp nañ ci noppi mais bu loolu amee lii benn message la boo xam ne na ko ñenn ñi dégg te lu mel noonu bu dikkee ñu jàllale ko ci ñeneen mm. wala ne coow lii ngeen dégg dara waralu ko lu dul la xalifa bu waxoon ca cérémonie officielle bi ca góor jigéen yi mm. loolu na ci ñëpp bàyyi xel ñu sant leen gërëm leen euh,